jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ñoo ngi fii bii wasaare ci émission bu mag bi nga xamante ni ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag yi dem ci supporters yi su ma nee xel yi dem ci mbër yi waaye mbokk yi tey damaa dala ñaari xale yoo xamante ni dañoo bokk ci làmb damaa dala ñaari xale yoo xamante ni ay ndaanaan lañ te mbokk yi ñoom ñaar dañoo tolloo waaye combat bi dafa nekk combat boo xamante ne dafa taxaw kii di Fallou Ndiaye taxawal ko ñu war ci journée bi nga xamante ni mooy journée Tapha Mbeur ak Ada Fass maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy armée bu ngéwél ak Hercule mbokk yi xale nekk ñaari xale yoo xamante ni bëggante lañ xale yoo xamante ni nii ñoom ñaar ñëpp dañoo bëgg bii combat dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu wéelu waxtaan wi ak kii Hercule nuyu naa la. salaamaaleykum fay naa la ginnaaw ma sant yàlla di julli ci nate bi sant sama ñaari waajur euh, sama maam yi nekk ci kër ga maa ngi ñaanal yàlla na yàlla may gudd fan. sama maam bi dem yàlla na ko yàlla xare arjana ak mbooloo jullit bu mu fa fekk di nuyu gars yi bu fi toog di nuyu sama grand zal ampagaay bu fi nekk di nuyu waa parcelle un ba vingt six ak sama waa dëkk waa conke sil waa Boulefoy vingt deux village yëpp maa leen di béggee bu baax a baax lan nga bokk ak Franc Franc bokkuñ dara mee sama grand la rek sama grand la boo xam ne bu baax ko xam te ne daf may conseil parfois ñuy contact sax di bëri di ma ne yow yaay sama mbër man tamit ma ne ko yaay sama mbër xam ne daal am na fu ma teg daal sama nit la daal. da ngeen duroo quoi yéen ñaar. waaw loolu la gars yi di wax quoi sama nit la moom ku baax la waaw. noonu baax na gis ngeen mbokk yi kooku mooy euh, ki nga xamante ni mooy Hercule Ameth Bou Ngueweul nuyu naa la. waaw onze billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ah ñooy sant ñi fi teew ñëpp di nuyu euh, Saloum mu ànd ak Ergila. di nuyu Dab tuuti micro bi. nuyu Dab daan bu baax ak Nokia di nuyu cameraman bi di la bëggee yow bu baax a baax a baax. waaw di nuyu waa Jamñaayo bu baax ak waa Déni Biram Ndaw ak waa Caaroy quoi. waa di nuyu waa Casamance nag bu baax a baax a baax waa Bañaana Medina Suwaane xam nga ak village yëpp wax leen yegsi naa si jàmm quoi. noonu la demee. da nga voyagé noonu la demee dama génnoon génn bu ndaw quoi. loolu demoon wuti xaafu xuufa yi nga demoon jëli wala nu demee. non sama waa Daara laa demoon rek mooy loolu. ñu yokk ñaan. non muy loolu dama demoon xool leen rek wax leen yaa ma gën a xam. loolu la waxe combat bi taxaw na la jege si na. non am suñu benn kilifa bu ñu doon jàngal nag chaque année day def ay gàmm ay ziar quoi waaw mu ngi mbir na suwaane. Hmm. waaw noonu la demee. combat bi kañ la taxawoon. waaw combat bi moom euh, le set bële avant corona bi. le set hmm. boobu la taxaw. waaw après Covid bi ñëw quoi euh, ñu ajaat ko ba le octobre quoi. ok ah, combat bu taxaw depuis avant corona bi defe naa ne wàccaay li war naa mën a sotti fi mu toll dafa mel ni pare ngeen. non man moom pare naa fépp. waaw parce que si laa jóge dem ba ci jour bi làmb ji mujjul am. Mm-hmm. waaw loolu lépp ma toog. la ma waroon làmb ji mujjul am. waaw Mor Mbaye gi moo ko nuyu moo ko tëggoon maa ngi koy nuyu au passage la ah. waaw da tëgg dem ba ci jour bi euh, mu am ay problème de reliquat. Ah. ok waa CNG arrêté journée bi mbir yi jotoon nañoo ñëw arbitre ak yëpp mais noonu la ñu waaw di sant yàlla bu baax baax di ñaan yàlla nekk lu gën. léegi combat boobu da nga koy bëriwaat wala boobu. Ah, jàll boobu moom suñ contrat jeex na quoi. jeex na waaw ah, suñ contrat moom jeex na kon fi mu toll nii Hercule moo fi des. waaw ah, noonu la demee Hercule moo fi des mu ñëw faxas ko jàll xool gaa yi si kanam. mais Hercule kii jógee ci doon waajal combat waaj ba noppi mu mujjul bëri mu ñëw dafa mel ni fi mu toll nii moom double avance la def daa mel ni pare na pour pour jàmmaarloo. man mii ci combat laa daan ci dama daan ci combat yàggul rek ci semaine boobu xaw ma deux semaines yi moom après si la naroon a bëre combat am avorté ñu war ma ko jox et maanaam adversaire ñu war a jox man maa doon bëgg yeneen adversaire yu ko gën mais gars yi samay morom nanguñ maa jël parce que combat yi ma def ko ñu ma bëri bëriwuloo ñoom suma tur moo ëpp turam ci làmb mais taxul ne tamit ma mujj koo jël ñu bëri rek parce que làmb mooy sama liggéey daal waaw. yaa ko ëpp maa ko ëpp victoire. léegi lan moo tax nga nangu ko jël. comme lu ma la wax rek samay morom dañu ma bañ a jël ci làmb yàlla def moom mu nekk fii mu nekk fii tamit ñu proposé ma ko ma jël bëre rek kon làmb muy sama métier. incha allah mais est nga nga daje xale boo xamante ni yaa ko jiitu ci làmb yaa ko ëpp ay combat surtout fi mu àgg àggu fa ba noppi nga nangu ko jël est ce que du risque. làmb lépp risque la maanaam du làmb kese sa àdduna àdduna lépp risque la celui qui ne risque rien n'a loolu la mais la moo tax nangu leen xoolante yi ñaar <laughs> da ngeen da ngeen da ragalante wala nan la demee noonu man comprendre ma. Hmm. non du question ay ay ay da ragalante affaire yooyu comme que moom nee ne euh, nu mu sax tiitukaay bi bàyyi na ko ci daara ji wala affaire yooyu noonu ñun ni tiitukaay. dafa dama gis yaa ngi wax nangoo sëgg xool ko yaa ngi siggi. nee ne tiitukaay bi bàyyi na ko ci daara ñun tiitukaay maanaam bu ñu juddoo xamal la dañ ci boppam amuñu sax luy tiitukaay. ku nga moom dem na ba daara ji mu dañ foofu ñun xamuñu la mooy tiitukaay xamuñu ko sax waaw xamuñu loolu. Ouzin dafa wax sànq benn wax quoi nee na euh, moom ëpp tur ci làmb moom raw ci làmb xam nga. Mhm. ñu bari su ma leen proposé armée bu ngéwël ñëpp xam. micro bi bu ngéwël. Mhm. ak lu làmb ñëpp ko xam waaye làmb ji su ma duggee làmb bëreew ma sax indi dab wala ma indi keneen xam nga armée bu ngéwël ngay dégg ci micro armée bu ngéwël dama bëreew ma xam nga. sama sama tur boo duggee ci YouTube bi tamit mu ngi fi maa ngi ay. ñaata combat nga jotee def cinq combat laa def. ñaata victoire benn defet laa am benn victoire la mu ëppalee moom. benn victoire ñoo tolloo ku nekk benn defet laa mais benn victoire la mu ëppalee waaw la demee quoi. kan moo la daan. di ba mécanicien bu Pikine. kan ak nga daan limal ma ko pour ñuy seetaan. jànkalaar bu Malika ak pët pët bu Fass Benno booy séeréer ak Malick Niang numéro 2. waaw ñooñu laa daan quoi Iba mécanicien bu Pikine. Malick Niang numéro 2 moom vite fait nga noonu la demee Malick Niang numéro 2 mooy loolu dama ñëw rek jaar jàll quoi xool leneen parce que dama nekk ci yoon xam nga ñu yónni ma yàkkamti ma quoi waaw sa waay nag dafa réere mbir bu baax a baax a baax. da laa xamul waaw dafa dugg ci loo xam ni xamu ko waaw te ñu toogee naan laa yaa mën armée bu ngéwal ñu ngi lay nax de li nga dugg sax xamoo ko bu dee côté pare maa la gën a pare fukki junni yoon waa damay ñaan suñu borom jour làmb ji yàlla nekk sama bis mu ñëw jàppale daan la jëlu bu gaaw si kàttan suñu borom. sa waaye daa mel ni xam na la ndax nee na dèjà benn combat nga benn victoire nga ko ëppale te yéen a tolloo ay defet maanaam moom jëm na di lijjante lu nekk jëm na lijjante ay sama tur ay lu nekk di dugg di woo sama grand mbokk bajaana ñu muy wax noonu wax naa foofu sama dëkk la jaru muy jéem di mi di àkkatoo seen waaw di waa damay reetaan muy wax ay bajaana ay genre demee noonu dama bëgg mu tëdd noppaleeku nelaw esprit am tranquille quoi waaw parce que lu muy lijjanti man lijjantiwu ma ay nii man la laa lijjanti samay entraînement jour làmb ji ma ñëw def ful ak fayda lu ma yàlla may ma jël te ndam laa bëgg yàlla na ma suñu borom may waaw te incha allah dama koy daan est-ce que est-ce que diggante yow ak moom est-ce que dina yomb comme ni nga koy yomb fi quoi lenn lenn yomb fi gis nga moom ponkal bu toll ni moom yaakaar naa ne bu ñëwee ci làmb bugul bugul ñu daan ko. day metti dafa ponkal ni waaw. lu ma sama bët ma gis par rapport man. man cuuj laa ci kawam quoi lu may gis <laughs> cuuj laa ci kawam quoi parce que moom loolu la jàpp quoi. waa loolu la jàpp quoi mais xam nga bu ñëwee taxaw naan day défendre affaire yooyu noonu moom mooy yàggal làmb ji mais bu ñëwee dëggal boppam comme nu mu wax ne ñëw vite fait affaire yooyu noonu yaakaar naa làmb ji yàgg parce que man damay ñëw taxaw joxe moom day ñëw tamit bu bëggee mu joxe làmb ji moom du yàgg. bu joxee ma joxe làmb ji du bu dee ko day joxe boobu sa xel na dal bu baax a baax a baax maa la gën a nekk xale maa la ëpp doole maa dàq bëri maa la ëpp moyen pour jàppale lu leer laa la wax fekk da nga yaakaar làmb ji day yomb yaa ngi nax sa bopp bu arbitre sifflé boo bañee xeex di nga xeex boo ko bëggee di nga xeex dinaa dox sa kaw incha allah rabbi dinaa jàpp dinaa daan si kàttan suñu borom. <laughs> yow instant da nga réer da nga réer lu baree bëree bëri. lu ngay wax noonu bëgg naa ko torop. wallaay xam lu ngay wax noonu. baax na dama ko bëgg a topp. wax naa la doomu joolaa kenn du ko laaj ndax bëgg na ñàkkatam kenn du ko laaj de. kenn du ko laaj waaw parce que ñàkk tàng la gën a bëgg loolu plan am la. ñàkk tàng lekkoo ci Casamance ñëw parcelle. Eh. a lekk foofu wax naa la loolu sama plan la. te man ñàkk ma ci a taamu. mooy duutir bi ak ak suul bi. comprendre de rawatina jaxatu bu weex naa ne doo ko lekk. loolu sa plan loolu la. toogal foofu rek sama plan la Casamance lañ ma yóbbu may jàng a dugg ci Casamance bu fekkee da yaakaar yaa dara Casamance nag yaa nax sa bopp bu baax a baax mbokk maa ko ay mbokk fuuf te xaritam yooyu ñuy wax samay xarit lañ ñoom waaw samay xarit lañ mën nuyu du ay xarit ñooñu samay frère lañu say frère lañ ñooñu samay frère lañ bu toog ay xarit du nangam samay xarit lañ samay doomu ndaay kon boo toogee di kii yow nga réeré mbir quoi yàlla moo ñu booleel mais kii dugg na si biir kër ndax xam naa nu fekkee mu xawi toog ñoom loolu la fa dem jëli rek loolu moom defaram loolu nga yaakaar rek du caaxaan dafa nekk li nga yaakaar rek loolu defaram la fa dem jëli ñooñu dañu nekk samay xarit yu baax xam nga di ñëw dal sama kër ñuy ànd dem ay mbapat xam nga yàlla dañu suturaal tamit dem mbapat dafa wane ay preuve di ñëwaat fanaan suñu kër xam nga mu ñoom ak samay yaay nekk samay xarit xam nga ñuy déggante lu bëri mun ñoo deux jours yoo xam ne. mais moo tax ñoom ñu nekk say xarit ba ngay seen rek. non bi moo jiitu xarit bi moo jiitu dañoo nekk ay xarit bu yàgg yàgg yàgg xarit moo jiitu quoi waaw man damay euh, dama koy kii côté boobu noonu pour mu bañ ma euh, euh, booleeg ñooñu parce que samay xarit lañ chaque jour ñooy déggante waaw noonu la demee bu fekkee nag moom ay frère lam lañ loolu ay frère lam lañ quoi mais man ak ñoom li ñu séq ñu ñoo séq quoi sànq sànq dañoo toog mu ne ma dinaa ko daan jëlu bu rëy fii laa la ko loolu day xaañu rek wallaahi kii fu mënti taxaw mun naa ko daan dix jëlu yu bokkul fan nga teg loolu côté côté ñaan dañ koy tege ne parce que loolu euh, ñaan borom moo xam ndam ñu ñëpp dañuy ñaan suñu borom ndam. Hmm. mais bu dee liggéey ak doole ak mun bëreeg sañ-sañ. téyel micro bu baax. ah ak mun bëreeg sañ-sañ. wallaahi bu ñu génnee fii nii nii ñu sifle ñu dix jël ma daan ko yu bokkul. mbaa du ma sifle woon fii léegi nga daan ko. fii nii léegi léegi waxuma la benn dix komba ma daan ko. wala mais mais mais eh, kii yëg na boppam de. waxu mbër lay wax xam nga waxu mbër. mbër moom xam nga bu ñu la joxee micro bi nii ngay ratatate di kii nii moom loolu waxu mbër la ñun dégg nañ fi ay mbër yu nekk gars yi di wax man loolu jaaxal ma lu muy wax nii kii barki alxuraan laa la wax yàlla moo tax duma ma waat sax barki alxuraan lu muy wax ne ay 10 jël kii dama mën a daan may naan ay 10 jël. mun naa daan waay bàyyi kii lu muy naan ay diis jël. yàlla xam na ne bëre bu nekk ci man nekkul ci moom. yàlla xam ne da ngaa neex rek. yaa ngi moom ku dàq billaahi wallaahi wa tallaahi maa ko dàq bëre téeméer junni yoon. ku dàq billaahi wallaahi wa tallaahi. <laughs> ku dàq xeex. sa dégg naa mooy mooy góorgóorlu ci xeex di dem ay. sa loxo yi sa loxo yi déggul olof kii loxo bi déggul olof. maa ngi déggul keroog bu ko bu ko site invité affaire yooyu mu naan Hercule am na ay failles affaire yooyu noonu. am ngay failles bu jour ba daf may corriger. affaire yooyu noonu corriger exploit la daan la. mais baax na bu jour ba su ma la yëgalee dama la laal sa faille li nga def ba ma daan la. lu leer laa la wax. sa waay su ma ko daanee ba koy yëkkati da nga faay mi xëy dem parcelle taggal ko ay maam doomu géew laa dama mën a way. waaw noonu la demee lu leer laa la wax non way dama ko bëgg su ma ko daanee ba pare mu ñëw ma ñëw may ko ko parce que dama nekk doomu géwél pare faire ci li ma doon bu baax a baax a baax ngéwél yi di ma jàppale waaye géwél yi nekk ci làmb yëpp di ma jàppale yëkkati seen doole di ko def ci man waaw amoon aw ma droit nag taxaw di euh, data ci làmb dama war a ñëw rek yéeg jàll dem sama yoon te nekkul kii moo moomay tee si carton suñu borom. fa dëgg fa yàlla moom fii nii fii fii fii moom dëgër na lu leer laa la wax fii du fu nooy rek. du du yoon bu nooy rek. fi nga dugg moo dëgër nga dugg moo dëgër. yow ndox bu taax nga wax naa la ndox bu taax nga. dama nekk xale liggéey. wax naa la ndox bu taax kii ndox bu taax dama nekk xale di. waaw ndox ba taax kii ndox bu taax la. Ah. amoon ndox bu taax moom du la fekk si yaa koy fekk pàcc pàcc romb. Mhm. kii ndox bu taax la. yàlla baax na <laughs> ba jour ba yàlla na yàlla sutura mais ndam si kaw kii. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo euh, woo ñaari bëy waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ci seen carrière waxtaan ak ñoom li nga xamante ni noonu la làmb di doxee fi làmb toll naka ngeen gisee làmb yéen ñi nga xamante ne ay jeune ngeen euh, bàyyi seen lépp ndax làmb naka ngeen gisee làmb. waa làmb fi mu toll moom euh, état bi rek laay balaame côté boobu quoi. waaw parce que euh, journée yi nga xam ne moo jot a passé waaw ñii nii si jour bi ñii suba xam nga ñii une semaine ñii un mois euh, côté boobu noonu état dafa waroon ñëw euh, bàyyi un mois boobu noonu làmb yëpp am de mois yi làmb bi tëj wala trois mois après nag lu ñu déclenché ñu déclenché ko après ñu ubbi suñu làmb parce que làmb ji dafa nekk loo xam ne ñëpp si la ñu yaakaar quoi waaw noonu la demee te nag li may dégg yenn grand frère naan mbër yi bu ñu bu ñu bu ñu la tëjee làmb ji duñ def leneen. ajal mi ko man gëmuma ko de. mbëri bu ñu tëjee làmb ji mënuñoo def leneen parce que ñëpp làmb ji lañu yaakaar dañoo am seen doole am na ñoo xam dañoo nekkoon ci leneen xam nga euh, làmb ji moo moo leen tax ñu bàyyi loolu lépp waaw dama leen lancé appel rek beneen yoon xam nga bu yi amatee ñu bàyyi ñu quoi ñu yeggale làmb ba saison tëj après ñu kii quoi di ñaan nag suñu borom mbas mi jóge fi quoi waaw noonu la demee loolu amoon lu may lancé. Hmm. naka nga gisee làmb fi mu toll. waaw Ousseyn làmb moom fa dëgg fa yàlla moom làmb melatul comme bu njëkk quoi fa waaw làmb neexatul xam nga làmb bu njëkk neexoon na ambiance làmb rek. jar na lu nekk jar na woon na lu nekk billaahi dëkk bi da nga naan toog fu nekk rajo yi télé yi ñëpp. dimanche bu jotee ba ñu xëy lundi foo dem gars yi grand place yi di toog xam nga même combat yu ndaw yi sax bu daan am gars yi dañu daan coow làmb affaire yooyu mais gars yi instant yi amatuñu jotul làmb su suus bi yeneen suus yi la ñu am yu gën a kii que làmb parce que làmb ñu koy ñu ko yor xam nga ak président joxuñu cër man dama ne maanaam euh, ñun ñëpp ay mbër lañu as ñaari association yu ñu wax keroog dégg naa Baama Ndiaye wax fii lu rafet. Mm-hmm. waaw koo xam te maanaam sama adversaire la bëri nañu yàlla def mu may ko ndam sama kaw. waaw maa ñaan yàlla na ndam li jik moom tamit mu nekk mbër boo xam ne macha allah daal. waaw wax na fi keroog waaw loolu du dara waaw loolu dara yàlla na ko lañ ko daan nag man moom képp kuy bëre ak parcelle moom damay ñaanal yàlla na ko doom parcelle daan malgré que même lu ma lu ma la kii sax xam nga léegi làmb nu mu doxee ni comprendre nga dafa doy waar quoi parce que ñaari association yu nekkee nii te ba pare parce que nit. du ñaar da ñett la. xoolal <laughs> yow wax nga wax nga ba ne ñett ñett association la. Mhm. Baam Ndiaye wax fii lu rafet da ngay gis VIP nekk ci kaw ñoom rek ñoo nekk di lekk affaire yooyu noonu ñun mbër yu ndaw yi mënoo bëri ay sept combat wala dix combat mënoo jënd vélo wala dara. parce que yaakaar naa ne parce que moo ñu tardé lu bëree bëree bëri bëri boo amoon liggéey boo doon def sax mu la doon jox benn wecca bi sax da nga koy mujj tegee ne la ndax amour bu nga am ci làmb làmb dafa fiir waaw làmb dafa fiir da nga koy tegee ne nekk ci làmb bi te làmb bi du la delloo li sa par rapport sa liggéey lu la kii kon doy na waar quoi kon damay damay ñaax gars association làmb yi am yëpp na yi ñëw waxtaan parce que nit ñëpp xel lañ yor hmm. association xaw ma bu Gris Bordeaux bi xaw ma la waaw ak association bu ñoom mobile 2 bi beneen bu nga wax boobu nag xaw ma ko waaw si ay ñoom Sibor waa affaire yooyu parce que ñoon ñëpp ay xale la ñu ñëpp xel la ñu yor parce que yaakaar naa ne nit ñi boo leen toogee waxtaan di ngeen déggoo quoi boo leen toogee ngeen waxtaan ku nekk wax lu ko métti affaire yooyu dinañ trouver entente lamb ñun ñëpp ñoo ko mook kon ñu ko bokkee dañoo war a booloo xàccandoo dóorandoo kon ko ñoom giir Bordeaux gars yi ñoom ñooñ suñu grand man dama ne gars yi nañu ñëw fekk si grand yi toog wax grand yi seen métti métti ak seen kii ñu booloo xàccandoo xeexandoo gars yi gën a jox lamb gëdd quoi man noonu laa ko gisee quoi. gaa yi gën a jox làmb gëdd. waaw noonu la demee mais làmb nag làmb nag euh, mbër yee ko war a jaay gannaaw promoteurs yi ñoo ngi jël seen xaalis di ko def ci làmb. Mm. lii mooy doxol làmb ndax ay mbër bu seen combat taxee war nañoo toog wax amateurs yi wala bokk wax ñi nga xamante ni ñooy suivre làmb ndax ñu mën a bàyyi làmb xel maa ngi nuyu Fallou njaay bu baax a baax maa ngi ko nuyu bu baax a baax ndax moom jàmbaar la. waaw ñu ngi koy nuyu de passage quoi mm. Fallou Ndiaye waaw. maa ngi koy gis mu taxawal combat ki nga xamante ni nii mooy bébé bis mi ak Baye Mandiaye numéro 2 combat boo xam te komba bu neex la combat espoir la te diggante géejawaay la ak parcelle kii duggoon na géejawaay am fa ndam kii dugg parcelle am fa ndam ñoom ñaar nañu boole leen que le meilleur euh, boo ngeen amoon kàddu yu mujj lan lan lan lay doon. ak ah, kàddu yu mujj gi moom di la wax ni bi passé si géwal yi nga dugg am fa defet te da duggaat ci doomu géwal yi am lay jàppaat <laughs> daan lu jël bu rëy xam nga. yaa mag maa la ko doole gën a neex xale. kan moo la ku gën a nekk mag ban ban année nga. ku gën a nekk mag yàlla daal. <laughs> na wax na wax ban année la rek non sama année du ma ko wax fii. non wax ah. xam nga. waaw mais billaahi mun naa la wax sama année bu dee da nga ko ragal mun naa la wax sama année. wallaahi tallaahi. waa léegi nga loolu. gisal kii kii <laughs> na ma lu bëree bëree bëri. sama mag yàgg na nekk yàgg na lekk ceeb 93 la man sama mag 97 nga wax. billaahi. yaa xam na kii moom wax daa nekk fi di wax du sax benn at du ñaar. mais kii boo xoolee kii na lekk ceeb. kii moom mag. waaw ñànk temps bi yàgg naa ko dóor rek man maa judd rek lekk ñànk temps li ñu toog yëpp man maa ñax te moom mënul fekk ba ñax. non moom kilim bi moo ma dem na liggéey. man kilim eh, eh, nañu waxante dëgg kii daa jóge fële ci naaj bu tàng bi man kañ laa fi ñëw ba mu ñëwee yàgg na ma toog di ko xaar moom mu dox ci naaj bu tàng bi ñëw ba fii xaaru sama woow mu ne la saaya aca ñu nekk ci émission bi ndax lii la ci bëggoon quoi yow dalal jàmm rek man ay affaire dëgg doomu géwél yu ngay wax ay nangam d'accord affaire bi moom làmb la bëriwoon naa yàlla bëri ak Baami Njaay yàlla may ko ndam mais sa suñu borom yàlla ma yàlla mayaat ndam sa kaw si kattan suñu borom incha allah fii doo ko fi amee. yàlla baax na si kattan yàlla. ba jour ba incha allah doo ko fi amee. ku ëpp sañ-sañ si biir géew ëpp doole dàq bëre gën a bëgg li muy def bu jour ba yàlla ko suñu borom may ndam. amiin yàlla rabin kon xamal ne naa am ndam sa kaw. baax na parce que bu dee bu dee jour ba la ko doole dinaa jàpp man mënoo la lu ma laa ëpp doole gën laa pare gën laa nekk xale. jour làmb ji loolu laa bëgg boo ñëwee ci làmb ji nga génn ñëw woon ma ko jour làmb ji laa. waaw am nga doole yaa ma ëpp doole boo ñëwee wan man yaa ma ko loolu laa bëgg laa ma ji naa la wal ba nga mokk ba mel ni dege yow am nga problème sérieux yow toppal di wax rek toppal micro yàlla baax na yàlla nañu suñu borom may eh, wax boobu yaa ko yow Sénégal mbëri yaa fa dàq wax nga naan toppal wax yi da nga dajak doomu géwél bu la dàq wax danga koy dégg muy wax kii ratatatatat dafa mun wax <laughs> mais di nga xam ni doomu géwél nga fekk bu dee wax maa la ko dàq fuuf dama mun wax mën a way feer ci géwél bu ma doon bu baax bu jour làmb ja di nga xam ne doomu géwél nga séexal dinaa indi ambiance xam nga indi clavier yi fecc lu neex feesal stade ko ëpp mbooloo yàlla na daan jàppale daan la jël bu rëy maa ko mbooloo fuuf maa gën a saf làmb maa ko mbooloo gën ko saf làmb ko ëpp lu mu indi stade bi ci mbooloo ah gën a yëngal stade bi yàlla na ko suñu borom may ndam. kàddu yu mujj yi ñu. maanaam kii euh, nu mu tuddati sax Ousseyn mhm. waaw. affaire moom neex na trop moom moom wax na ay waxam ba kii maa ñaan jour bi yàlla ko suñu may yàlla may ma wér xam nga mu egg ci jàmm may Ada Fass wér may Tapha weer wér may promoteur bi wér ba lu mu mën mu sumb ko ak jàmm ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin buñ ci eggee yàlla ma suñu borom may ndam maa ngi wax joolaay waa 22 village buluf yëpp fu mu dëkk waaw man maa ngi woo waa Casamance waa Conke Sil 22 village yëpp buluf man maa leen di woo ñu jàppale seen doom njëmu ne woogul ñu la boo ji sabari ji doo min jaa e combat yande min jobu tej le 31 octobre auto deuxième victoire si armée bu ngewel inchallah njomune wok autorité bara Casamance burom burom game asoma minata jaata uh, abou ben sembo abdou gilbert nyasi samsidine jaata mandia le maire haro chonke sil njomune wogo omar okola baji njomune wogi usabari ujogtune combat yayu fanfan ale casa national njomune wogol ale casa euh, bu conke sin yëmuna woogule combat yaa jujoo ji randen aleexul waaw di gërëm waa parcelle 1 ba 26 di woo waa 24 yëpp nañu génn waa Café ga waa TFC sama boo yëpp maa leen di gërëm di gërëm gars yi waaw di ne saawaay nag ba jour ba incha allah waaw noonu la demee di nuyu waa Casamance bu baax nag xam nga man duma ma soose du ma joolaa olof laa di doomu géwal mais dama fa nekk yaroo fa waaw di nuyu sama mbokk soose di leen wax mbaal màndinkoo mbaal bee bu ngéwal soto combat Euh, aliyen son duwaalo aliyen maa koy baake euh, na booy Hercule V Diatta waa di nuy bu baax a baax na di nuyu waa Jamñaayo bu baax ak waa Dén Biram Ndaw ak waa Caaro yi xam nga di woo sa mbokk séeréer yi sama mbokk soose yi sama mbokk joolaay sama mbokk lébu yi yëpp di woo ñoo nekk sama ginnaaw ma jàpp sa waaye daal ko baal joolaa nga woo sa mbokk yi kese baal joolaa man dégg ma ne maa ngi woo benn géwél xam nga na woo na bàyyi na na bàyyi di woo joolaay ma jéem a kii naan benn géwél yamal si sa mbokk yi ku nekk yam ci say mbokk mbokkam yi dégg nga sa mbokk yooyu sama yow dalal jàmm woo sa mbokk yi nga yam foofu noonu moo gën ngay woo ay nii wala ay diw ay ma woo fi benn géwél tiital moo tax ku nekk nga koy woo mais man suñu borom laa yaakaar ak xam entraînement yi nee na tiital ma sax bu ma sañoon gënal yokku yokk eh, de gënal yokk nga gën a saa a yokk a ngande gën maa arrangé loolu yow ma yor ma koy ni làmb yow toogal fii di wax rek mais man lii tiitalu ma sax. man damay bëre ponkal yu la ëpp yu la gën a kii mënuñ ma yëngal man lii. taytalu ponkal boo bëree ñu daan la yow gàmm maa ngi taxaw ñu daan jëlu gaaw sànni la fële kii du compétir li may compétir di ko jël ci làmb xaajoo ba koy jël. musoo jël fii la dem naan moom moo daan Ada Boy Baol Ada Boy Baol keroog maa kii mu ne ma Hercule

maa ni woo bu baax di woo waa sama waa koñ xam nga di woo Bogal mbay bu baax ñoo jàpp si combat bi Pape Mbaye Ndongo Saari xam nga Mandione Gueye sama papa maa leen woo ngeen jàpp ci làmb ji di woo Adama Mouhamed Mbaye nag bu baax waa jam ñaare Adama Mouhamed Mbaye maa ngi lay woo ngeen jàppale ci làmb ji xam nga Waly Faye di woo Aziz Mbeng Souleymane Dabo Mbaye Sibi maa ngi woo ngeen ñëw jàppale ma ci làmb ji bu baax baax monsieur le maire Moulaye Gueye nag ak sama yaay sama maam Fane Ndiaye maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ci làmb ji sa sët bàyyi nii di raatale làmb ji xam nga nekk champion bu mag nag maa lay woo nga ñu jàppale ci làmb ji madame le maire Fatou Ndiaye Agnès xam nga di woo Vieux Sow sama tante Ndeye Ndiaye maa ngi lay woo tamit nga ñëw jàppale ma ci làmb waaw mën ngaa baa doo gërëm de bu soobee yàlla yow gërëmal la waa ji moom dama koy tël ba mu meex ma ma sànni ko fële xam nga dem xoole leneen man la saa man la Hercule bu conke sil xanaa dégg bu jour baa man maa la ne yëba boobu dama lay attaqué fii rek bàcc ren rek jéegi saa boo bëree wa ma tegal la baa bi boo la la basaa bul wax xëj sama peeg daa ko noppi yor sama a baax mbëri xam nga te ku ma bëreel insha allah rabbi dama lay baax dama lay daan moom baax naa ko depuis keroog te suñ kattan borom dama koy daan gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo lay demee ci jàmmaarloo maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen bu baax a baax di leen jox dig daje beneen loon ci jàmmaarloo maa ngi nuyu ki nga xamante ne nag mooy Lat Diop président Lat Diop maa ngi koy jaajëfal gis naa geste bu rafet bi def démb ñëw ci ñaari euh, ASC yi ku ci nekk bu may la un million ndax njëkkewu ko ci ñoom xam naa ne tamit du yem ci ñoom maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy Waly Waly xale la boo xamante ni képp kuy ànd ak la jóg wala képp koo xamante da nga dëkk passé rek pare na koo jàppale la di ko wax na nag ñoo ngi ci ginnaawam di leen jox dig daje beneen jàmmaarloo ci Wassare Lamb jër ngeen jëf